tournée bi li ko tax a jóg d'abord mooy ñëw xool ñi nga xam ne dañu seq ak ñoom contrat ñu signé ak contrat ñu jox leen jiw jox leen semence euh, muy semence jox leen engrais euh, nit ki su ngeen seqee mu nga jox ko sa yëf wala lu nga xam ne ñëpp a ko bokk te ñu dénk la ko yow nga koy saytu euh, rafet na boo ko joxee ba mu dem ba ne laa ah, man di ji naa ko nga dox sa tànk nag nga xool ba xam ji na ko.

Euh, dana gën a dana gën a baax surtout nji bu mujj mais dans la euh, dans l'ensemble, d'al, gis nañu né euh nawet bi alhamdoulillah rabil alamin li ñor yàlla nañ ko yàlla nañ ko mourlo donc lolu nek système bu nga xamné système de contractualisation bu am solo la ren nak euh, ñu contracter lu ëpp lu lu ëpp juróom fukki producteur ñi def ak ñom contrat jox leen daané ké lu jege 900 tonnes jiwu te xam ngeen Sonacos moom bu la joxe ñaari tonnes ñaari tonnes la lay laajaat doo wax nga teg ci dara xanaa lam ci teg rek mooy soo amee sa gerte nga ñëw nga ñëw nga ñëw jaayaat ko donc loolu moo ñu indi woon ci ci gox yi mais daañ leen waxitam ne incha allah financement bi dina teela a ñëw euh, ndax président Macky Sall euh, président de la République joxe na ndigal yëpp pour que béykat yi seen financement teel a teew ba nga xam ne Euh, ku bay rek ku dekk rek Bobare, naaf bo bàccee ba pare boo yóbboo Sonacos ñu Saoudite, la fay sa fay sa Nous euh, mbir la mu nga xamné bu la banque islamique de développement garantie de fa jël islamique ak laaj te suñu partenaires yi euh, farlu ak président Macky Sall dossier financement campagne bi gëm nañu ren financement bi dina teel a yemb. daaw Sonacos jëndoon na quatre vingt cinq mille tonnes ci gerte ren nag moom euh, na leen euh, mën nañ leen wax ne euh, li ñuy jënd dina ëpp loolu Sonacos dina jënd lu ëpp fuuf loolu waaye nag comme kilifa yi addooguñu ci mbir yooyu yëpp ma tax dañuy xaar ba ñu addu ci su ko defee nañu def annonce annonce annonce officielle bi. Mais là, que de mon manuel de 85 000 tonnes.